Laurent fan yi ñu gis dëkk bi tàkkoon na ñu gis euh, ñu am dix ak ay blessés en tant que lutteur nekk porte parole boo waxee dañ lay dégg nanga nga ko gisee. waaw métti dul nañ ko trop trop trop trop parce que tam ñi si dee suñuy frères lañ xam nga ñi doon xeex suñuy frères lañ ñi doon xeexal suñuy frères lañ ki fi nekk suñu père la kon kon affaire bi. métti dul nañ ko daal mais lu war a am moom faa mu am suñ borom moo ne woon loolu dafay am dafay jaar yàlla bu mu fi amati ñu gis manifestation yi ñu yàq lu bari Auchan yi tamit yàq lu bari ah, am na sax ñu ci ne ah, mbëri yéen seen genre ñoo nekkoon ci terrain bi di yàq ba ba nga ko déggee yow nan nga ko gisee. waaw bu ma ko déggee daf ma metti parce que xam nga lu tax ma metti ma man xeexuma xeexaluma kenn te pourtant mbër laa ak yeneen mbër am na mbër yoo xam ne juguñu fi ñu toog mais tey bu nit génnee ne mbëri la dañuy am lu ñu metti parce que man bu fekkoon kooku wax ne mbëri ñoo xeex moom xalaat na ne am na njaboot te pour temps dafa bàyyi njabootam te mbëri ay njabootu jàmbur lañ kon balaa muy yëkkati kàddu di ko jëmale si ay doomu jàmbur wala ci njabootu jàmbur war na xool wala mu xalaat ba pare xam ne ñun ay njabootu jàmbur lañ te duñu xeexal kenn man de du ma xeexal kenn te man du ma benn mbër muy xeexal kenn parce que koo xeexal bientôt bu fi toogee ay mbokkam ak ay famem ak ay njabootam lay def lay teg ñu dend ak ñoom si nekkul yi ñu gis ci la euh, ci ci ci lañ jàpp ne comme ñi mënuñoo nekk ay ay homme de tenue est-ce nekkuñu ay mbër. waa mais ñooñu ñooñu man mënuma leen considérer comme nit parce que imaginer bu fekkee ay mbër lañ man considéré ma leen ay nit bu fekkee ay nervi lañ tamit considéré wu parce que mënuma comprendre yow sa réew am problème nga war a défendre sa réew dem di défendre partie au pouvoir man mënuma comprendre loolu quoi parce que ñoom man considéré ay nit parce que boo xoolee ay ponkol yoo xam ne lañ amuñu job amuñu luñ def pour ñu coob sax day nekk problème kon bu ñu gisee benn journée dal leen ci kaw nit ñi sax dañ ciy daal sa xalaat ayow jàppoon benn ba benn mbër na ci terrain bi. man man man dama part man wàccuma ci terrain bi te jàpp naa ne benn mbër ñaqewul fayda noonu di wàcc ci terrain bi di xeexal kenn. parce que tey ñooñu doon xeexal parti au pouvoir nañ xalaat ne suba parti boobu dafay jógee ñeneen ñoo fi ñëw. waaw nañuy bàyyi loolu xel saa su ne quoi nañu xalaat ne suba bientôt ñeneen ñoo fi war a ñëwaat waaw. mais dañoo gis bébé Modou Lo mu def benn kii ne dañoo ñun mbëri dañoo war a ci terrain bi jàkkaarloog neuf yi xeex ak ñoom parce que dañuy jaay doole suñu kii est loolu jàpp ni moom moom mu joxe message bi taxul tamit mbëri wàcc kam waaw parce que loolu mu wax yoon la parce que ñu ngi yàq dër mbëri naan mbëri la mbëri la te pourtant du mbëri parce que ñooñu bu fekkoon ay mbër lañu war nañ xalaat ñoom bu ñu amee combat ñooñu ñu doon xeexal ñooy sonn ñooy sonn si ñoom ñoom ñooy sonn ñooy sol seti ñooy daw ñooy yuuxu kon mënuma jàpp na ñooñu ay mbër lañ ay nervi lañ rek ay nit yoo xam ne amuñu njariñ ci réew mi ñu jot leen di leen xeexee waaw man gis naa ñoo xam ne billaay wallaay bu ma leen gisee mënuma comprendre ne sax ñii. mbër nga gis wala. ay non du duñ ay mbër duñ ay mbër man ñi ma ci gis duñ ay mbër parce que ñooñu boo demee stade ñoo koy garder grand théâtre ñoo fay nekk waaw parce que ay manifeste ay affaire yu bëri ñoom ñooy yor sécurité bi mais war nañoo mënoon ruus loolu ñuy def di xeex seen i ñoo nga xam ne ñi ngay xeexal say mbokk lañ say famille lañ say jarbaat say njaboot billaay gis nga policier boobu ñu dagg loxo bi moo ko seedaanee dama am lu ma metti barki Serigne Saliou xamul tax ma am lu ma metti man dama xam ne ñun ñu ñuy xeexal ñoom ñii suñuy fereer lañ ñii suñuy ndijaay la ñoom suñuy raxa lañ ñoom ñun tamit seen i raxa lañ ñu ëlbatiku di xeex ak ñoom ba ay bakkan di si rot en tant que mbër ngeen nekk feen di fa représenté euh, maanaam seen kii seen kii national quoi dem Europe di fa bëree est ce que tey image yooyu rafet na ñi toog naan mbër yi ñoo doon yàq li ñoo doon yàq fii ci Sénégal. non loolu ñaaw na trop dafa ñaaw trop trop trop parce que moom comme lu mooy wax rek waroon naa xam ne am na ay am na ay doom te ñun ay njabootu jàmbur lañ lu muy wax si ñun dafa waroon rafet. billaay dégg naa Gris Bordeaux naan damay porter plainte moom may président leader xaw ma moom man gëw ma ko. man dama paar barki sëñ Bamba góob ma Gris Bordeaux. gars yi jiital Gris Bordeaux ne porte na pour défendre leen yéen mbëri ngeen xanaa tey la ñu défendre ñaata ñaata ñaata réunion la fi woote woowul benn mbër bu ndaw man maa yor kàddu mbëri ndaw yi maa leen di waxal te du ma si dellu ginnaaw moom amul benn benn réunion bu mu am bu woow benn mbër bu ndaw wala mu convoqué benn mbër bu ndaw bàyyi ba ñu wax seen i wax mu naan day porte plainte. wax jooju nekk pour Gris Bordeaux ba ba pare moom sax yaakaar naa ne bu buñ ko déggee tamit da da euh, dane maa mbëri ndey yoo xam ne amuñu euh, kii bëreewuñ ci at bi corona bi ñoom ñoo ci terrain bi di yàq mais kooku noonu moom mun naan protéger lu boppam yéen lay protéger mbëri nday yoo xam ne lekkuñu am ak gëstu ñoo bëri. noo Gris Bordeaux avant ñuy tudd mbëri nday moom la njëkk tudd de ba mu seetal boppam baa ngeen loolu. moom lañ tudd moom njëkk tudd génne benn benn nervi ne kii Gris Bordeaux la mu génn setal boppam ah nest léegi mu ëlbatikuwaat ne day défendre mbëri non dama day défendre waale boppam parce que moom lañ ci njëkk a tudd. ne Gris lu muy def noonu nekkul ci moom. lu muy def gëmu ko xoolal bu ko ministre bi woon léegi si ruq léegi ñu juboo ñoom ñaar mu bàyyi lépp mu sedd ñoom ku nekk am nga gaale am nga oto bu rafet muy Balla gay am nga euh, ñaara villa lañ am ñaara oto fu nooy la ñuy tëdd te xoolal luñ jox mbëri ndaw ñoom ñoo koy lekk. bu ñu waxee ñu naan ay président lutte na activité ñoom nañu may jaam Gris Bordeaux man jiitew ma man. moo jiite mbër yi waaye yan mbër la jiite xanaa. ndax affaire bu taxee moom mu nga dégg muy wax mi di di di di xam di porter plainte ndax loolu pour défendre. Ah, plainte bi du jub du jëm kaw man maa la ko wax. waaw ngi ci chaque jour ñu ngi ciy wax. bi du jëm kaw bu ko Balla Gaye poré woon plainte moom man dama siy ànd quoi parce que moom am na ful la si boppam ba pare lu muy def da ngay gëm. da ngay gëm ni Gris yow doyu la quoi. du mu doy ma te du mu mus doy parce que gëmul boppam Gris Bordeaux daa gëm boppam ñaata réunion moo fi am amul benn mbër bu ndaw bu mu convoqué ba pare naan ay lutte arrangé activité xanaa ñun nekk ñu ak ñu nekk bokkuñu si ñun amul benn mbër bu ndaw bu muy woo moom buy woo day tànn ñu muy woo Siteu dong moo si wax wax loo xam ne day jariñ bëri amul keneen ku si wax sa bopp nga fiy nekkal Gris Bordeaux boppam lay kaaral li tax muy kaaral boppam parce que moom lañ si njëkk a tudd mais nekk ah, ci ci ah, ñëpp ngeen nekk ay mbër yaa xam lépp lu ñuy def dañoo war a ne woote ne diw ak diw ak diw. noonu la demee bu fekkoon dañuy woo ñëpp wala ñu bind liste convoqué ñëpp amul mbër bu ndaw amul mbër bu mag ñëpp teew waaw bu boobaa lu mu wax dañ ciy ànd mais man ànduma si man. moo porte plainte waaye yow del xool porte plainte du jub xaw xaalis dañuy jaam bu ko ministre bi di gis wax ji dañ koy gas suul ko dégg feena bon. instant yoruñu de ñoom mbëri mag yi yoruñu de. mbëri mari waaw mbëri mag yi bu ñu yorul kon mbëri ndaw yi fu ñu jëm waaw mbëri ndaw yi mbëri ndaw yi xam nga dañuy liggéey mais mbëri mag yi liggéeyuñ de ñoom làmb lañ yaakaar est-ce que nga ma ñoom làmb lañ yaakaar liggéeyuñ dara li ñu leen jox bu jeexee faaw ñuy xarmatu wala ñuy wax loo xam ne dañ ciy am dara day national bi tey la woon yow leen di après nan nga ko gisee nan nga ko apprécier waaw kontaan si torop kay waaw parce que ñun Sénégal lañ waaw man lépp loo xam ne day jëmale Sénégal ci kanam rek man ànd naa ci mais lépp loo xam ne day dëngal Sénégal gars yi sàcc yi profitoo ci liggéey ñii doon def lu bon profitoo ci def li ñuy def yaakaar na ñoo si nekk xeexluñ kenn de lu gara sàcc yi seen bopp lañ doon liggéeyal parce que gëj nañoo sàcc depuis corona bi sàcc ñu. un an sàcc ñu quoi. léegi nag comme tey dégg nañ ne manifestation am na faaw ñu profitoo sàcc. bu buñ sàccee par mais Sénégal naa wax de ku fi def lu ku fiy def lu jubul bu yoboo nga xool def dañ lay lu xar ci ba fi nga nekk. da nga jàpp ne en simple euh, simplement arrestation Ousmane Sonko euh, taxul nit ñi di génn di xeex di agressé ay non no musul tax ñuy génn déggoo lu ma laax ñi nga xam ne daa lu leen metti ak ñi nga xam ne gëj nañoo sàcc faaw ñu profité pour sàcc. ñoom ñoo profité sàcc ñi nga xam ne am na leen metti xeexal nañ seen boobu sànni nañ xeer dem nañ toog tal nañ puno mais ñi nga xam ne sàcc moo leen yitteel sànni xeer yitteelu leen sàcc nañ Auchan lan nga leen di wax. ñooñu ay sàcc lañ moo ñooñu ñooñu nekkuñu dañuy manifester parce que ku toj palaasu jàmbur sàcc nga. ku dem pour manifester sànnil xeer taalal puno mais dem di ay daje ay taal non ñooñu ay sàcc lañ. man tey est-ce que investisseurs yi nekk fii nii Sénégal tey bëggoon investir dara ci Sénégal est-ce que bu ñu gisee ni ñu def comme Auchan ñoom nañ ci sawar di ci investir. non duñ def dara man de bu doon man du ma investir ah nga investir xaalis ñu daj ko sàcc ko lekk ko mujjul fenn. lu fu mu mujj même buñ ci jàppoon ay nit sax da ngay gis dañ leen di benn yées ñu génnaat nekk ci liñ nekkoon. mais yi euh, euh, kii tubaab yi la la xam naa la xale jàpp na ñoo ko moom moo tax ñu dugg yàqu. même bu ko tubaab bi moomee suñuy doomu réew ñoo suy liggéey buñ fayeekoo ci réew mi lay des te pourtant dañuy jaay kaani salade concombre te fii ci réew mi lañ koy bayee kon xam nga suñ suñu waa réew am nañ ci dara man góoma loolu ay Auchan tubaab yee ko moom tubaab yi ñëw Sénégal pour investir autoroute à bi kan lañ koy fay. waaw li lu tax ñu yàq ñaar ñaata jour da ngay ñëw rek jàll yàqaluñ ko de seen bopp lañ koy yàqal bu ñu paree facture courant ndox bu ñëwee ñu ñu fete ko ci tiire ko ci bu baax ñu naan facture yi daa fekk ñoom ñoo yàqoon ñu yàq ñu leen koy fayee ko par ndànk